lepp kaalis nga koy def ngoñ da ngay jënd ndox da ngay jënd kéeti da ngay jënd mo ngi doon jar 8000 légui mo ngi jar 15000 1000 francs 16000 tam bot du yeen wand bon xamna bop lu muy attan rew mi ñoko bok mbokki antoon di eh, saxoo di bàyyi xel Ngab Média ak chaîne bu mag bi di ASG production ñu ngi leen di ziara bu baax di leen bëggee di jox ñëpp seen wàccuwaay comme ni ñu ko defaree ni ñu leen koy defalee boobaak léegi ci tabaski bii di leen toppal bépp information wala euh, wàccaayu tabaski bi jëm ci lépp loo xam ne dañ koy yittewoo ci wàllu euh, tabaski bi mu mel ne mbokk yi ñëw nañ fii nag ci daral bi nga xam ne mooy daralu daaru marnaan fas yéene dugg xool ñi nga xam ne ñooy jënd ak di jaayaat xar yi kon su ko defee ñi ngi and ak équipe bi ñu dugg légui ci biir daral gi fassiyene waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, jëndkat yi ak jaaykat yi. han ah? fi dafa seerum jaay mako wax fi ni garage dagar bi daral gi dafa seer la am jaay han ah? ñat ñaari fan maa ngi fiy wër ay 100 la ñuy wax 100 nangam légui la dem yoonu baghdad am fa 80 ma nga ne ci 100 mal xar mu baax xar mu baax laa fa am 80 lu leer la wax fi dañoo aju njaay fi dañoo aju ah xawuma waye man dal en tout cas fi mom dafa seerum jaay ab taxi man la nak xari nak wax deug yalla ñu ngi jaay nak waye wax deug yalla jaay bi mom demegul nonu client ya ngi dugg ni di waxale di dem ni waye wax deug yalla affaire yi mom doxagul dal dañuy dégg ñu ne fi euh, daral dar man nan xari dafa seer lool lool. déedéet seer na seerul mom vraiment déedéet wax deug yalla seer na seerul. njëg kari yi moom kar nañu kari yi yomb xam nga lu ko dundin dundin kari ñoo nga koy def ngoñ da ngay jënd ndox da ngay jënd kéti da ngay jënd mo ngi doon jar 8000 légui mo ngi jar 15000 1000 francs 16000 ripaas bu noy bi mo ngi doon jar 8000 mo ngi jar ñaari junni ak ñetti témir ha fi daral bi mom, mun nañ daral bi mom kari seeruñ daawla la ginoon seer ak ren xaw ma dañoo yéex a wàcc xaw ma yéexuñoo wàcc xar yaa ngi fi bari na xar yaa ngi fi bari na mais dañoo aju comprendre nga léegi laa dem yoonu Baxdaad fa laa jëndem xar quatre-vingt mille francs ah te xar mu baax laa am. Fall maa ngi lay siyaare. mu ngi siyaare baax Fall maa ngi lay fekk na nga téye sa ñaari xar. xar yi moom baax na de. waaw waaw xar yi de moom macha allah moom. wax dëgg yàlla. moom koy jaay. waaw moom de lañ ci bëgg Fall. mu toll. ah xam de waxtaan ba juboo rek. waxtaan ba juboo rek Fall. Ah, mu mel ne tabaski ren bi euh, ñi ngi wax ne xar dafa seer lu waral loolu. waaw waaw maanaam seeraay bi ci maanaam ci yar gi la ndax mën naa yomb ci côté bi mën naa seer ci côté bi waaw ndax bu fekkee maanaam da ngaa wutum xar maam di koy yar jëmale tabaski maam yëpp lu war nga def ko ci maam kooku nag bu yombee yomb gi du doon lool waaw maam loolay waral muy seer ak yooyu waaw waaye nag maanaam ku ci maanaam. bëgg bi bu bu la ci duggalé ah. manam mën nga ko jaay ci lu xewele tamit mu baña ser ndax dañuy faral di wax ni xarmam bu fekke manam bëgg mo la ci duggal manam même li nga ci dépassé sax do ko yëk wa do ko yëk wa bu fekke nak manam dang ko jënd waaw pour business ak yoy nak wa boba mën nga ko teg lo xamanteni ne ko tamit. ñi ngi la fekk fi ci daral gi ngay jënd xar nu xar dem défé wa xar ya ah sant rek xawna bari nak mom waaye prix bi taxu ko taxu taxu koo yomb xar est-ce que dina mëna yomb nak buñ waxé ñina xar yombul xar yombul. ba gars yi nañ mën a am xar waaw war naa mën a yem non gars yi moom dañ am xar moom waaw ren moom yaakaar naa moom ku bëgg xar di nga am xar ndax prix yi moom xaw na abordable nu xar def waaw alhamdulilah hmm. waaw li ñu gisagoon moom daal na xel moom ba gis wër nag gisagu mais maa wër hmm. mais am naa yàqin ne moom danaan gis li bëgg parce que mel na mbir mi am na changement waaw waaw am na changement bu baax a baax ren la gën a yomb ci daaw waaw ren la gën a yomb ci daaw waaw loolu si loolu am na moom kon yow jàpp nga ne nga jënd dara gi nii di nga mën a rabbi am naa yu jënd ba pare sax waaw damay am damay dolliwaat rek ñun heure bi daw ñu ngi jaay saa 40 sa 35 ren sa 30 sa 25 sa we sa 5000 kari seeruñ te kari bari nañ fii lool daaw ak ren ban kari gën bari ren fii de ren lañ ren lañu gën a bari fii moo waaw jëndkat yi ñu ngi ñëw wante daaw heure bii. heure bii heure bii lañu gënoon a jënd. daaw njënd mi daaw la ëpp. ren la kar yi ëpp itam. fii boo ko bëggoon am fi mu toll nii dinaa la ko jaayee cent mille daal. waaw. ndax kii xarum yar la. xarum yar la waaw kii xarum yar la man yoruma déedéet du ay xaru coogal xaru yar lañ waaw. par rapport tabaski ren ak daaw xar dañ la gën bari. non tabaski daaw la sa xar gën bari waaye wax dëgg yàlla tabaski ren la xar gën a xaw a yomb nii tuuti daal ok. bi dugg ci dara gi dafa am ku ñu jël mu wax ñu nañu euh, xar dafa dafa dem euh, am xarum quatre-vingt loolu ko waral. ah ci xont bi lay doon wala ci xont bi lay doon rek ak transport bi. Hmm. ndax xam nga ne di jënd ay treize mille ay dix xam nga ay saku ripaas bu noy 10000 francs xam nga koku mom dafa kilo ta rek mu ngay jar 350 ah lolou bo ci bëggee xontu ay quelques xar xam nga day miti ci yow faatunu ko waaw waral muy seer ndax ñen ñi dañ ciy fere lañu bëgg génne waat ak yoy té man lolou mënu mënu mënu cee kii wa waaw gis na lolou nak wa gis na lolou ndax daaw manam ni mu mel meluko won té ren gis na ci wa gis na ni ren mom bari na machallah fii laa nekk caajaay laa dëkk waaye fii laa moom Touba gii laa ne waaw maa ngi daaru marnaan gii waaw kon ba euh, jotagul nga fee jaay ay client ay xar yu bare bare wala fi mu toll nii moom daanaka gisagoo client yi fi mu toll nii moom gisaguñu client yi déedéet suñ daral baa nga fay ci ginnaaw nii ci ginnaaw yi rek ci ginnaaw sappoor yi dañoo génn ni ñëw fii quoi pour tabaski bi waaye ñu ngi fii ci ginnaaw sappoor yi kon kàddu gu mujj gi jëm ci client yi ak tabaski ren bi nii waaw tabaski ren bi moom alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla rek wa sant yalla rek way suñu sañoon moom affaire yi mom gëna kalan kalan quoi ndax ñun ñoy président quoi ñun ñoy aaye. non gën na fee seer nag. Ah, par rapport ak ren mom mom sant ndax ku xol daw ak daw jéeg rek mom yaakaar na né xam nga xaru seerut ndax daw da ngay yor 100000 do am xaru bax baax ren moom boo yoree 100000 am xaru bax ci biir. depuis kañ nga ñëwoon bëgg xar. non sang ni rek sang ci mo la fi doxantu. mais japp nga ne bala nga dem dal di nga mëna am. waaw waaw ya am naa yaakaar joju nak am naa yaakaar. njëg njëg daw bi mo gëna sér seer njëg ren bi waaw loolu dal man kam na ko ci waaw nañuy jappalante rek ku ñew dal dina ku ñew dina am quartier lu yomb du tane lu lu tane waaw ñepp dal dinañ tabaski ku am fukki jooni di nga am ku ma cent di nga am ku am 150 di nga am ku am cent di nga am ku ne dola fu mu toll fi ñewé di nga am kar waaw wante bo sété kar bu wara a jar téeméeri junni nga yor 100000 nga dag koy jënd lolu itam bot du yeen wante bon xamna bop lu muy attan rew mi ñoko bokk. mi taxul yu xari yomb tamit maam bu xarum yar. tax ko yomb waaye daal gis naa ne daal ren moo gën a taw feexe daaw daal jaajëfal kon daal rafet nga jot ci tabaski ren bi daal dana ma ku bëgg a tabaski da nga tabaski waaw ci insha allah rabbi yaakaar naa waaye am daal da nga am xar ah, ci kàttan waaw ñu ngi leen sant yéen itam bu baax a baax ñu ngi leen sant bu baax sant yéen it ci kaw li ngeen def ndax li ngeen def rafet na lool ndax li laaj mooy tax a xam fekkoon laaju leen du ngeen xam ngooñ mi nag moom wax dëgg yàlla toll na sa daanaka ci lool li ak léegi ni meloon jógu ci yokkul wàññikuwul fii ñu toll tembe daal ñu ngi koy jaayee saako bi ñu ngi koy jaayee ay 4000 francs wala 4500 ñu koy jaayee 5000 francs wala ñu koy jaayee 4500 di ci am dara loo xam ne lu bu ñu demee man cee toppatoo yor suñuy kër toppatoo ci suñu njaboot loolu rek moom la ñu fi dee xar yi nag moom wax dëgg yàlla gars yi ñu ngi jënd moom ñu ngi jënd ngooñ bi moom ñu ngi koy jënd waaw ñu ngi koy jënd bu rafet moom wax kii ku wax xar wax buum euh, ba tax na ñu gisee suñu benn mbokk taalibe buy jaay buum maa ngi lay siyaare daa sar baax kay yaa waaw ah, yow kay naka buum baax mi ngi jar ma ngi jar kawaay baax ah yaa ngi ci gis sa bopp baax baax waaw ma gis sa bopp ah, kañ nga taam la jaay buum yi ah, tey jii tey jii waaw ñaata ñaata ñaata buum nga jaay subaak léegi xaa tey ñett téeméer mille franc téeméer ah téeméer jaay nga waaw buum ñaata ngay jaaye bu nga saa waaw sant yàlla rek sant yàlla rek wax dëgg yàlla moom mi ngi dox ndànk ndànk rek sant bu baax ñu ngi sant yàlla baax moom waaw ndax bi am na kilo 300 am na kilo 350 bu dee mboq mi 300 la bu dee basi bi ñu ngi koy jaayee 400 bu dee bu dee bu dee mboq bu ñu wal bi moom it ñu ngi koy jaayee 400. jàmbaar lañ lool xar yit wax dëgg fi mu toll tembee ñi ngi xaalis amul nag xaalis moom moo bëriwul nit ñi bëgg nañ waaye amuñu xaalis waaw nit ñi bëgg nañ waaye amuñu xaalis waaw. ngeen daan na moom yokkuñu dara man li ma daan jaayee ba li ma li ma daan jaayee ba may tabaski wut yokku ma ci dërëm wàññi ma ci dërëm noonu rek laa koy jaayee. waaw ndax ngooñ mi bi may bi bindaataa bi ndaataa tabaski fekk na ma jënd ko di ko jaay loolu kon ndegam jeexut fu ma ko yokkee day mel na leneen la li waral wuta prix bi maanaam mooy ci ci qualité bi lay lay doon quoi xam nga ripaasu jarga dafa bokkut ak ripaas bu nooy bi ndax ripaas bu jaar ba dañ koy liggéey euh, mu ànd ak mboq ak yeneen vitamine dafa bokkut ak euh, repas bu nooy bi bu nooy bi moom amul du am mboq te it euh, bëriwul vitamine moom moo tax bee bee gën koo seer. tabaski gi xanaa ñaan ci yàlla rek ñu fekke war ko ay ati at ndax wax dëgg yàlla tu tubaarkàlla tubaarkàlla noo ngi koy ñaan daal ay fekke ko ay ati ati ati at te yéen yàlla jàppale leen ba seen liggéey ngeen gën cee continuer bu baaxa baax yàlla loolu leen a jàppale ba li ngeen ci bëgg ngeen am ko ci kàttanu suñu borom barke Cheikh Mountakha mun nag taalibe Sëñ Mountakha lañu waa Darou Minam lanu di leen sant rek di leen gërëm. kon daal yaa ngi gis sa bopp ci buum bi bu baax a baax. waaw maa ngi baax a baax kay. looy bi. mbokk te yaa ngi de yaa ngi fekk dañu doon déwén. amiin wax na ay yéen ay awa awa awa Touba. awa a ngi defoon ay yi nag ñoo jënd si ci buum yi. gars yi jënd si buum waay. waaw jënd si buum gi. si baax. ay ay moom. waaw yow yaa fan. yàlla suñu borom gudd fan ñëpp ba tey mbokk yi alaaji Abdou Samad Gueye moo nekk ci caméra bi ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ziyaara baax a baax ñu ngi ci borom taxi yi taximaan yi nga xam ne ku jënd xar rek ci oto nga koy teg yóbbu ko te ñoom ñooy transporter xar yi Baye Boy maa ngi lay nuyu baax la ziyaar asalaamaaleykum wa rahmatullah ah ñun ci alom gi kër Touba ah, xar ñi ñi nit ñi ngi ah am na ñuy jënd am na ñoo xamante ni bu ñu dañuy xool ah fu xamante ni maanaam seen doole eggu fa itam maanaam ñu taaxir lu xaar suñu borom yàlla ndax xam nañ ne moom xéwal gi suñu tubaab moom day day ñëw moom maanaam moom fii ku fi lu fi waaye bëgg moom di ko am moom ndax fii moom dëkkab Sëriñ Tuubaa la dara du lenn lu baax du fi du fi jafe waaw moo tax fi mu nekk nii taalibe yëpp moom. ah eh, dal noonu ma maanaam ñu ngi dox waaye koo ci gis rek fi mu nekk nii maanaam moom ak dal lay doxee. ñu ngi ci de moom ñu ngi jënd xar ñu ngi yab partout di tuuti ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def yërmande itam waaw ku jënd sa daal te ñëw nu wax ak yow jéem a jubóo yaw jéem laa yóbbu bu sa lin la wax bu fekkee sa kàttan àgg na ci. ñu defale ko ñu defee ko noonu bu fekkee sa kàttan àggu ci ñu wàññi la ko dimbali la jàppale daal ba lépp maanaam antu nga mën a dem sa kër ci jàmm yóbbu sam xar ci jàmm yóbbu la ci jàmm waaw ci loolu daal la dox. Mhm. Euh, waaw loolu de moom xam nga ñaare nag du mën a ñàkk dana am nag li ciy am nag mooy bul ko ëppal danga ciy dugal yërmande waaye nag du lu mën a ñàkk ndax xam nga nun noo gis loolu tali ba circulation baa ngi nii yenn saa yi mën ngaa def une heure de temps 30 minutes bi doo dem doo dikk wala ngay tegg di gën a consommer sa consommation kon faw mu am lu mu demee noo xamante ni xëy na da nga ci dugal yërmande nag waaye it wax dëgg yàlla yokk bi moom du bari nag moom te it nag faaw nga dugal ci yërmande waaye nag mën ta ñàkkin nag